mbokk yi ñëw sant leen gërëm leen ci seen àndaax ñun euh, si euh, rajo Rewmi FM ci noonu koy defee rek dimanche bu jot fii ci émission gox bi te nag ñu am ci mbégte bu yaa di ci dalal ki nga xam ni moom moo di Abdoulaye Ba nekk conseiller ca mairie bu euh, Njaareem Limaamulaay nekk itam conseil technique bu maire ba sëñ bi Abdoulaye Ba ñu ngi lay gërëm di la sant ci nu ñu nangulee invitation bi ni mel. waaw <clears throat> ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi euh, gërëm suñu ñaari waajur ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay fay. Mm-hmm. di la remercier ci dalal bi. Mm-hmm. di ñaan yàlla liñ fiy waxtaanee mu nekk njëriñu askan bi. Mm-hmm. Euh, ñëpp gis ci seen bopp yàlla may ñu kàttanu kàddu ba ñu mën a wax lii jara ñasin bi. Mhm. am na solo monsieur Ba tey euh, li nga xam ne moom moo jëm ci coronavirus tey bokk na mel na ni bokk na si suñuy dundin mënuñu wax leen te loo xam ne nag ñu ko ci tey nag nga gisee li nga xam ne moom moo jëm ci mbasum coronavirus bi ak deuxième vague bi nga xam ne dafa ñëw ak doole di indi gàllankoor gu bari. waaw xanaa di di di sant yàlla ndax yàlla mooy teg jullit lu ko lu ko neex. Mhm. Euh, donte nag jullit bu nekk bu la yàlla tegee am nga noo war a doxale pour loolu man nga mën a mu mën koo teggi euh, muy déjà euh, problème bi ñu am ci réew mi nga xam ne moo ñu xaw a sonal yaakaar naa mhm. mooy ndaw yi nga xam ne ñooy fair de lance lépp lu nguur wala askan di def mhm. ndaw yooyu ci la ñu am jafe-jafe ak corona bi ndax xëy na gis biñ ci war am mhm. gisee ko noonu wala déggee ko noonu ndax ñaare waxin yi ak déggin yi dana wutee tuuti ñaare ci ñoom mhm. ba xëy na nañ ko war a fonkee war war ko doxale mhm. euh, mu xaw a des tuuti mhm. euh, loolu nag lu mu jur ci xeex bi mooy Euh, xaw na yàggal feebar bi ndax feebar bi warul woon mën a yàgg ci suñu askan. Mhm. ndax xëy na euh, yàlla may nañu disposition yoo xam ne mën nañoo xawoon dékku feebar bi tuuti. Mhm. waaye deuxième vague bi ni mu ñëwee moom ñëwee na ak doole boo xam ne. Mhm. Euh, xëy na analyse yi ak yaakaar yi lu ñu amoon. xaw na wute ak li deuxième vague bi wane. loolu lu mu war lu mu war a jur ci réew mi mooy. ku nekk xam ne lii. donte mënoon nañ cee mucc sax. Mhm. dañ cee waram taxawaay ndax ñun dong newuñu ci àdduna bi. Mhm. te ñun buñ ci xawuta lor it am na ñu muy lor ñu bari ci àdduna bi. Mhm. kon dañoo war a bokk ci xeex bi pour mu gën ci génn ci àdduna bi. donte ne serait-ce que ça war naa tax ñu gën cee góorgóorlu. ci loolu dañuy gis ni li nga xam ni moom moo jëm ci wàllum sensibilisation bi dafay des bu baax a baax euh, yow naka nga gisee message bi nga xam ni du ne ndaw ñuy jotuñu ko waaye am na ñoo xam ne dañ koy xaw a tànkamlu mel ni kuy jàpp ni euh, jàngoro ji amul. waaw xam nga loolu li ko gën a yaatal mooy eh, maanaam xibaar yi xew léegi li ñuy jotale mel ni WhatsApp lu mel ni Facebook maanaam. Mhm. adduna bi dafa nu mu bindoo noo xam ne xëy na lu nit doon xalaat ci sa biir nekk eh, yàlla may na la kàttan nga fu nga koy waxee nga mën koo partager ay doomu aadama yu bëri. Mhm. est-ce que nag li ngay wax tegu na fenn waaw. ñaari ni ñu du ñu seetlu. Mhm. est-ce que ki nit ki li muy wax tegu na fennam déet. parce que waykat docteur yaakaar naa ñoom ñoo war a nekk suñu référence. ci lii ñuy wax nii. mais gisuma benn docteur. bu ne feebar bi amul. man boobu dañ naan kay aspirine mën na koo faj mënu koo faj mën nañ ko fajee ne la mën nañ ko fajee nii mais ñëpp juboo ci ne feebar bi am na. Hmm. maintenant am na nag ñoo xam ne tey eh, maa ci échanger kenn rek hmm. léegi ba avant may ñëw ñoo ñuy wooyee concept théorie du complot sonal nañu askan bi sonal àdduna bi. Hmm. ndax euh, ñu baal ma tuuti dama taseeg benn enseignant professeur. bëgguma ko tudd waaye c'est important parce que li am solo la. il dit lii politique la. ma ne ko politique rek la xanaa kon àdduna mi yëpp ñoo maase def politique <laughs> ndax amul réew mi gën a mag maanaam feebar bi jàpp naa ne li gën a démocrate si àdduna bi mhm. feebar bi ci la bokk mhm. amul réew bi am puissance amul nit ku néew doole mhm. mboolem bindeef bu yàlla bind munoo mucc ci feebar bi kon ku taxaw nag naan amul ak demul ak communication def ni def na la am na ñoo xam ne dañuy def seeni band Euh, yónnee la ko ba pare na la partagé ko wala ñu yónnee la film ba pare na la partagé ko. Mhm. mais kooku lu in lu am njëriñ amatu ci parce que moom mi ngi wut profit. Mhm. ci lim la yónnee ndax lu ñuy gën di seetaan vidéo boobu. Mhm. xaalisam di gën a bëri ci poosam. mais yow la muy wax contenu ba dara maanaam amul cëslaay amul fenn fu mu ko wér. lu dul ci ay njortam ak i xalaatam. yaakaar naa kenn gënul bëgg nit ñi. seeni bopp. te amul benn réew booy dem. te fekkoo fa nit ñi jël wàcc ay disposition mhm. pour mën a xeex bii jàngoro. du France du États-Unis du fenn. ci lool nan lañ war a def ngir xeex loolu tey li nga xam ne moo jëm ci wàllum désinformation yooyu nit ñi di ko joxe euh, ñi ko naan gëmuñu ko ñoom fan lañ ko teg bu baax ne gëmuñu li ni mel. bon man bokkuma waa kër docteur xëy na bokkuma yoruma communication waa kër docteur te xam naa ne lu ñu mën a wax it. Mhm. bañ ko tàmbalee xëy na lañ ca war a wax war ko wax ña ngi koy wax nañ ko war a waxee. Mhm. xëy na fenn rek la ñu xawut a insister mooy ñi nga xam ne feebar bi da leen di jàpp. Mhm. te du leen sonal maanaam laataax askan bi xam ne loolu am na. Mhm. xaw na yàq lu bëri ci communication bi. Mhm. parce que man damay dem feebar ñu may faj wala jox ma benn aspirine. maa ngi doomu jàngoro bi mais xëy na ni ma jàppee ne feebaru noonu la demee dalu ma mhm. ma wër ne dara jotuma te fii or que mhm. xëy na loolu indi na indi na jafe-jafe mhm. ci mbiru xeexu corona bi ndax xëy na ñooñee newoon foofu naan dara amut na ñu ngi ma fii dañ may neexal nangam nangam or que wax dëgg yàlla ñooñu ay porteur sain la ñu woon ñoo xam ne ñooñu dañ leen doon éviter pour ñu wàll yeneen askan bi loolu xëy na yàq na lu bari ci communication bi beneen bi aussi mooy nit ñi ñoo war ubbi seen xel Euh, bu fekkee ñun africain mhm. li ma benn kilifa wax sama première région maire léegi mi naan lépp lu jëm daanaka ci corona bi mhm. li muy manifesté woo daanaka mook paludisme sorewul kon xëy na ñun bu ñu feebaree siburu mhm. euh, wute nag bu siburu jotee tubaab yaakaar naa ne malaria fu mu jotee tubaab moom daanaka ay mbokkam utile nañ càngaay kon bu fekkee yàlla may nañu loolu wuute na tuuti ndax feebar bi ni muy wàllantee dafa gaaw munul des Afrique bàyyi àdduna bi maanaam munul nekk il faut que africains yi jël seen disposition bu ñu bëggee bokk ci rendez suba bi mhm. gën a xeex feebar bi parce que ñoo gën a doole ndax tubaab bi mën nañu demalante mhm. isolé ñu su boobaa it ñun ñoo koy yëg mhm. te loolu li ñu koy yóbbee mooy ñàkk gëm feebar bi ndax bu bu fu mu jeex feneen te jeexul fii aussi yaakaar naa ne jafe-jafe yu mag lay jot ci ci ci Afrique commune bu Ndiarème Limamoulaye la ñuy waxtaanee ndax yéen euh, seen mairie ba euh, la ca war yëpp yéen a ngi koy def ci wàllum xeex bi waaw xëy na la ca war na ñu ngi koy def dina xaw a diis ndax la war lépp na waaye ñu ngi jéem suñu kéem kattan yaakaar naa ñi may déglu dëkk njaari moom lay xam nañ ne. ci premier vague ba. bi muy jot la de man ci njëkk a woote ci maire Sénégal yi woo sama maire ne ko kaa am na géejawaay. yaakaar naa ci laa bokk soo ko jotoon nit dina la ko wax. kon mm, yàlla may nañu ñu teel yëg ne. corona bi moom Sénégal mënu cee mucc. ndax maire def na ñaari réunion. ci yooyu ba jëndoon sax ay raxasukaay ay matériel yóbbu ko ci école yi pour gàttandu jàngoro bi kon jàngoro bi ñun. Mhm. daanaka ñun dañu see fekk. teel ngeen ko sóor ci ci taxawu mhm. jàngoro boobu. Mhm. Euh, beneen bi mooy dañoo fexe ba askan wi amul waaso amul parti politique amul dara maire créé comité boo xam ne comité communal la woon buy xeex Covid. ki ko jiite woon mu ngi nekk euh, responsable réew mi sa la grand parti. wane ne ko foofu amul woon. maanaam par parloo ci mbiru xeex Covid. Mhm. jéego yooyu ca doxoon mooy fexe ba askan bi nit lu mu def daram dina ko sensibiliser maanaam bu mu ñëwee ci kër gi naa leen dañoo bëgg ngeen jël seen alal def ko ndax président nee na ñu jàpp ci. Mhm. loolu façon sensibiliser la woon ci nit ñi war na leen ne corona mi ngi fi ñu defoon ko ci quartier yëpp. quartier bu nekkoon aussi la ñu tolloon ci seen doole defoon nañ ko ca ñu def ko ci internet bi seen participation ci lañ jënde woon ay désinfectant mhm. ba tey boo ñëwee ca fañ ko stocké woon. am na participation yoo xam ne ña nga fa. ñu ngi ciy jox école yi di ci jox marché yi di ci jox ñëpp ñoo xam ne soxla nañ ko. Mhm. pour mën a xeex mbas bi kon maanaam mbas bi moom. Mhm. ñun teeloon nañ ko gatatu. Mhm. deuxième vague bi aussi bi muy ñëw bett nañu bëri ndax. Euh, am na xew-xew yu mag yu fi jaar. Mhm. yoo xam ne nit ñi jàppoon nañ explosion dina am. Mhm. xëy na loolu it participer na ci li xaw a euh, yoxoxal ñenn ñi. Mhm. ba yaakaaroon ne corona bi moom jeexoon na. mais deuxième vague bi moom ni mu ñëwee. wax dëgg yàlla metti na trop. ban taxawaay ngeen ci am yéen itam euh, bi may ñëw nii rek. maire mi ngi doon def ñu ngi doon ànd ak maire di def tournée pour désinfecter. école yi nga xam ne dafay ubbiwaat suba. te suñu doom yi ñoo fay dem. ba ñu jéem koo sellal. ba xale yi suñu ñëwee fekk fa environnement boo xam ne dina xaw a euh, méngoo ak ñoom ci seen ci seen ci seen nekkin ci mu baax ci école yi. Mm-hmm. Euh, li ñuy wax foofu nag mooy maanaam ni ñu defee décentralisation. Mm-hmm. ñun euh, école yu ndaw yeeg ndaw préscolaire lañ yor. Mm-hmm. ak élémentaire loolu moom yaakaar naa ne maire lépp lu mu mën. ci kéem kattanam. mi ngi koy def ci ci école yi. lu mel ni marché yi. dimanche bi passé rek marché yëpp lañ nettoyé comme ni ko président recommandé. Mhm. ndax marché yi 17 heures la ñuy euh, la ñuy arrêté. Mhm. laata ngay ñëw sax si marché yi ci école yi gis nañ ni ci ba ci daara yi gën kawe yi Covid bi mu ngi fay tàmbali di dugg ba xam yéen li jëm ci wàllum euh, euh, nettoyé waat école bi désinfecté ko bu baax la nga xam ni moom moo jëm ci commune bi naam ay école élémentaire ngeen yor ndaxam a xaarandi ngeen jébbal fa ay masques ay gel ngir a mën a aar ñi nga xam ne ñoo di xale yi xam ne ñoom ñoo fay jàng. waaw maanaam jëf jëf joobu jotewul dara ak euh, xaar mbas wala école bi loolu si maanaam vécu euh, institution bi la ci chaque jour bu saay bu xëyee. Mm-hmm. amul bés bu meer dul xëy laajte fi nga xam ne ñoom ñoo ko ñoom moom ñoom la ñuy def di jëflanteeg ñoom. jëme ci lool loolu moom ñi ngi may déglu xam nañ ne li may wax directeur d' école yëpp vont le mm-hmm. ba bërki démb rek ci alxames bi daje naa ak directeur d' école yi xool ban gis-gis la ñu war ndax bu fekkee classe dafay am soixante élèves wala soixante cinq élèves. Mhm. Euh, nombre du table bi matewu ko élèves yi nañuy toogee dana wuute ak. disposition yoo xam ne moom la euh, kër waa kër docteur wax ñu ñu ñu ñu jël ko. mu mhm. ngi doon waxtaan ak ñoom ba xëy na mesure état bi daf ko cee fekk. Mhm. mais moom waajoon na pour xool nan la ñu mën a wàññee euh, présence su élèves yi. ci yenn classes yi. yaakaar naa ne ak mesure bi nga xam ne nguur gi jël na ko dina gën a sellal yombal. nekkinu élèves yi ci biir ci biir loolu. loolu moom nekkul. lu ñuy waajal lu ñuy def au quotidien la maanaam amul semaine bu ñuy toog te saytuñ. Mhm. lan la institution war a def. Mhm. jëmale ko ci biir école yooyu. ci loolu junj nga ko sànq ci mbirum marché yi gis nañu itam bërëb la yoo xam ne dafay indi ay dajaloo gu bari ndax yéen itam la ca war raxas marché gi euh, benn fan bu nuy wax ni dimanche bi yéen a ngi def li ni mel wala yéen xaaru leen loolu. waaw xam nga bi mesure bi di génn yaakaar naa sax dafa fekk ñun ñu nettoyer marché yi njaareem ba pare. Mhm. mesure bi soog a génn yaakaar naa ku am attache service départemental bu service d'hygiène bu géej bu géejawaay ci commandant Diallo. Mhm. dina la wax euh, engagement njaareem ci désinfecté ay mosquées yemuñu rek ci. Euh, école te ndaxte école mhm. lañ defaat. laa wax parce que dañu préparer ouverture bi. Euh, marché presque c'est tous les quinze jours. mosquée yi à chaque fois que besoin sera. Mhm. dinañ dem ci mosquée yi ci boppam parce que lieu de rencontre yëpp. dañ leen di dañ leen di désinfecté. Mhm. Euh, ñu joxe benn anecdote dañu mës a xëy <laughs> xaw a tëj mairie bi parce que les gens commençaient à se poser des questions lu tax mais mairie bi comme dafay dajale ay doomu aadama yu bari. Mhm. ni ñuy désinfecter école yi aussi noonu lañ ko war a defee ci instance yooyu parce que léeg-léeg mu nekk porteur yoo xam ne te nit ñi duñ ko duñ ko duñ ko waru leen bàyyi fenn daal fenn fenn fenn fenn li jëm ci takkum masque yi itam ci naam euh, sensibiliser askan ga foofu kuy dugg ci marché bi war nga mën a sol masque sinon rek war nga bëre wala yéen teg ngeen ci ay matuwaay yu war ci ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu yu ni mel waaw xëy na balaa mu ko tëb mooy euh, ci fukki fan ak juróom lay tollu yaakaar naa wala fukki fan ak ñaar. Mhm. service régional bu d'hygiène ñëwoon na suñu commune. dafa lancement benn activité boo xam ne xëy na war nañu vulgariser ko ci population Sénégal. mooy mhm. mooy ñu fexe bay désinfecté ci biir kër yi. Mhm. ni ñu koy defee ñoom ni ñu wane woon mooy boo jëlee pot ndaa def ci eau de javel mu fees da ngay jël ñeenti pot. maanaam pot ba nga nattee nga natte ko ñeenti yoon. sotti ko ci récipient bi. jaxase kook moom. la ñu wax nag mooy booy jël éponge bi doo jël éponge dugal ko ci biir siwo bi dangay jël sotti fomp ndax dañuy bañ éponge bi ramasser ay ay virus. Mhm. dugg ci day yàq li nga xam ne moom ngay defaree. Mhm. loolu it lu ñu ci wax mooy 24 heures la yam boo ko defee solution boobu moom à la kulli fu mu fekk virus bi da koy rey. Mhm. loolu it jaadu na askan bi yëpp xam ko. ndax loolu ñu defal seen bopp. ñaaram ñetti fan wu ñeenti fan yu ne wala semaine bu ne nga désinfecté sa kër loolu it dana baax dana baax trop. ci xeexum jàngoro bi waa service ñoo ñëwoon doon ko doon ñun ñoo war a joxe suñu bopp ci ay exemple maanaam ñun ñi nga xam ne ñooy autorités yi. Mhm. ndax souvent sax ñu mel ni man am nañ difficulté. Mhm. mais dañ koy forcer di ko takk ndax. bugguñu bañ koo def. Mhm. nit ñi naan voilà ñoom ñoo lay wax def ko te doo ko. te duñ ko def mhm. voilà loolu it daf ci am solo. Mhm. ndax léeg-léeg way ñenn ñi bëgguma tur benn dara. waaye ñi nga xam ne ñaari ñoo koy ñoo koy tere wala ñoo koy digle. léeg-léeg nga fekk ñu xaw cee sàggan trop ñoom ci takk bi su boobaa dafay xaw a jafe ci askan bi ñu intégré ko ci seen bopp. mais li jëm tamit ci marché yi yéen bu ngeen ko daal di tëjee la nga xam ne moo jëm ci koom gi dafay xaw a naxasaay euh, a ko indi ba heure sàngam nga daal di tëj ak couvre-feu ak yeneen yi li ne mel dafay xaw a sooxe tamit itam ci wàllum comme ndax yéen seen mairie mu ngi koy sentir ci wàllu wi ni mel. waaw xam naa ne moom mairie bi moom mooy sant xëy na mooy ëpp lu muy gaañu ci ci ci loolu ndax ku ne xam na ne mairie amuñu doole seen comme ñu ngi koy jëlee ci marché yi ci lopp mhm. kon suñu néew néewalee dugal xaalis bi ci marché yi. Mhm. mairie yi ñoo koy gën a yëg. Mhm. ndax fa daanaka seen i lu ëpp ci seen i moyens foofu foofu lañ koy jëlee waaye li ñu Euh, du situation bu war a mën a continuer maanaam situation yu provisoire la. Mhm. te li tax loolu mën a éphémère mooy ku nekk ci ñun la nga war a def nga def ko mais ku nekk si ñun la nga war a def boo ko defulee maanaam boo waroon perte benn fan boo am chance di nga perte ay weer. Mhm. te euh, mën naa ñàkk. ndax feebar bi moom ku ne xam na ne euh, lu ñu mën a faj la lu ñu mën a xeex la. Mhm. ndax ñu ngi koy faj loolu waxatuñ ko mais xeex ko ba mu jógee fii mën naa ne. ndax bu ñëpp yàlla mën nañoo suturaal ba feebar bi dina fi jóge mhm. mais acteurs yi nga xam ne ñoom ñooy sentir seen bopp couvre-feu bi metti na mais mhm. su fekkee man maa war a respecter yenn mesures barrières respecté ko ba feebar bi yàgg fi mhm. certes on dira que metti na mais man sama responsabilité là-dessus dañ ma ko waxuñu ma ko ma dañoo war wax nit ñi askan bi ñu xam ne ñoom dañoo responsabilité fexe ba feebar bi gaaw fee jugee wala ñu mën koo maîtriser. couvre-feu bi fii tey euh, ñu ngi ko indi cinq heures du matin ba vingt et une heures euh, am na ñenn yi sax ñu naan dañ koy yokk ngir ñoom ñu gën a mën a liggéey am nga ci xalaat lan la. sama xalaat mooy ñu respecter mesure barrière yi ba ñu jëlee fi couvre-feu bi je loolu moo gën. Mhm. maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi. sàmmonteeg ndigle kër docteur yi. Mhm. ba feebar bi jóge fi yaakaar naa bu fi feebar bi jógee suba. Mhm. amul benn raison pour ñu def couvre donc yow daal euh, da nga daj jàpp nga ni dañu war a continuer couvre-feu bi le temps que ñu feebar bi gën a mën a wàññeeku. waaw bon bu ñu bu ñu bu ñu waxtaanee ah. Mhm. Euh, xëy na du ma autorité bi décidé mais boo jëlee bulletin bi nga xam ne moom la ñuy joxe. Mhm. ak bulletin première vague bi am na wuute trop. Mhm. kon mesures yooyu nguur ga jëloon ci jamono joojee amoon na efficacité. parce que am na dëkk yoo xam ne ñu xam xamuñu leen woon. te léegi nit ñaa ngi leen di commencé xam ci bulletin yi nga xam ne moom la waa kër docteur di joxe mhm. ndax feebar ba law na ba àgg fa mhm. te kon feebar bi Sénégal maîtriser na ko ci mesures yi nga xam ne jëloon na ko mhm. ci jamono boobu loolu dafa am solo ñu bàyyi ci xel ndax doo wax rek lii mais da ngay jël aussi di léeg-léeg ngay xalaat sa xel di nga ko utiliser di ko xalaat xool li ñu lay won nan la wuutee ak la fi ne newoon kon mesures yi moom lu am solo la. Mhm. ci xeex ci xeex jàngoro yi parce que la fi jaaroon. Mhm. war nañu njariñu mesures yi nga xam ne moom lañu ñu war a jël. mais am na ñoo xam dañ ne couvre-feu bi bañ ko jëlee ba tey li nga xam ne moo jëm ci cas yi moom dafay gën di yokk rek wàññeekul benn yoon. waaw mooy li ma wax xam nga cas bi maanaam dañ ne nañu wàññi dox bi. pour wàññi. Mhm. Euh, ba ñenn ñi sax naan xanaa virus moom guddi lay dox. Euh, je veux dire xam nga concentration maanaam nit. doo boo koy jox leçon. dafa am noo koy wane maanaam dañu bëgg a wan nit ñi ne dañ leen waroon tëj seen i kër. Mhm. waaye mënuñu ko def ndax coow li nga wax. Mhm. mbirum doole mbirum liggéey mbirum dund. comme mënuñu ko nag nañu wàññi ba ngeen xam ne war ngeen a soppi seeni nekkin ak seen i doxalin. Mhm. pour mën a xeex ak jàngoro bi. mais message boobu nit ñi dañ koo jëlul ndax dafa mel ni couvre-feu bi contrainte la ci ñun ci suñu dund. or que. dañ ko war a boole suñu dund. ci la bokk. ndax buñ ko ci boolewut mën naa am yeneen ñu gën a métti yu ñëw ci suñu kanam. te euh, est-ce que yaa ngi xaar ay confinement ah mais su fekkee dem nañ ba man du ma autorité buy décider parce que sama xalaat rek laa wax xalaat la yaakaar naa ne boo bu ñu amul chance mën nañ ci àgg ndax am na loo xam ne. Afrique mënul nekk àdduna bi nekk fee mënul nekk. Mhm. c'est-à-dire que c'est que li nit ñi mënul comprendre mooy amuñu ay millions de morts mais virus bi mu ngi ci suñu biir di circuler. Mhm. te kenn du jógee sa réew di ñëw fii di jëlaat virus di ko yóbbuwaat sa réew. Mhm. loolu moom mënul nekk sa veut dire il faut nit ñi ubbi seen xel ci loolu. du caaga ne amuñu dee yu bëri wala du amuñu cas cas grave yu bëri. que feebar bi non virus bi su boppam moo fi war a jógee. parce que bu fi jógeewul ñu nekk si leneen. Euh, non je veux dire. Mmh. Euh, imagine tey France. Mmh. ma jox la exemple nga xam ne mooy xëy na ne suñu partenaire bi gën a mag. mais en tout cas mooy suñu. référence ci lu bari mmh. nga fekk na France bu ñu xeexee ba def li ñu war a def ba fi feebar bi ñoom ñu jógee ci seen réew. tu penses qu'ils ont accepté que man Sénégal li mu jógee fii pour dem foofu leen yóbbulaat feebar. ils vont jamais le parce que li leen feebar bi sonalee. man sonalu ma ko. donc ñun ñoo war a jàppale suñu bopp jàppale réew yooyu. Mhm. pour mën fee jëlee feebar bi en réalité. ba tax na ñu ngi annoncé mbirum vaccin gis nañ ni rek euh, fan yi ñu génn wala barki démb ministre bi dem di xool fu nu war a denc li nga xam ne moo jëm ci mbirum vaccin bi ndax jàpp nga ni mooy solution bi tey ñàkku bi. waaw mooy solution xam nga amul benn lu fi mbas mu fi yàlla wàcce te tegul ci wet bi solution amul. Mhm. man li ma njëkk def mooy lan mooy vaccin bi maanaam maanaam balaa nga naan lii baaxul war ngaa xam li nga naan baaxul lan la mhm. bu nit ñi laajte lan mooy vaccin bi ba ñu xam lan mooy vaccin bi maanaam lu mu wuute ak yeneen yi fi amoon su boobaa ñu bëri dañ xam ne jël ko wàññiwut lu bari ndax dina la aar mhm. ndax liñ naan la mën na la cee fekk daanaka lu ëpp ci li ngay jumtuwaay bi nga yor mhm. lañ naan la mën na la koo xañ daanaka boo seetee jumtuwaay boobu nga yor la nga xam ne mën nañ koo am ci yow ñaari sax mën nañ ko bañ am ci vaccin bi ci yow. Mhm. muy sa liberté ak yenn yi. ndax ñun ñëpp ñoo utiliser yenn xeetu mm, bagages yi te yooyu mm, ku ci bëgg xam li ngay def ak li ngay wax fo ne. Mhm. mën na ko cee xam ci lu gàtt kon vaccin bi. Mhm. Euh, solution la pour mën a wàññi. Mhm. Euh, virus bi bañ bañ ko fee jëlee. Mhm. ndax bu ñëpp immuniser woo nga xam ne virus bu ñëwee mënatul sonal kenn. Mhm. virus bi dootul am njëriñ bu bëri. mais mais mais loolu mel na ni communication ak sensibilisation bu baax la laaj ndax am na ñoo xam ne ñooy wër ci pegg bi mel ni kuy xaw a yàq yëf yi. Euh, désinformation bi ni mel maanaam taxaw gouvernement bi am benn communication bu am solo ak sensibilisation bi. <laughs> waaw dama am ku mu waxtaan léegi mu ne maanaam àdduna bi dafa am loo xam ne comme li ma ko junjoon ci njëlbeen gi hmm. dafa am ñoo ñuy wax ñi nga xam ne dañuy wax théorie du complot théorie du complot hmm. mais théorie du complot ñan ñoo si gagné réalité maanaam nguur Sénégal xanaa euh, réew mi ki ko jiite soxla na hmm. am nit ñu wér soxla na am askan boo xam ne am nañu tawféex ak jàmm ba xëy na ëllëg ku soxla ci ñoom boo ñëwee wax ak ñoom ñu dégg la yaakaar naa loolu mooy njariñu borom réew mi euh, réew ñi nga xam ne ñooy référence ci àdduna bi muy dama déglu benn kilifa gu baax mu ne moom li ko gëmloo feebar bi mooy Iran ak États-Unis jubóowuñ mhm. te ni Iran di xeexee feebar bi noonu la ko États-Unis di xeexee kon weesu nañu feebar bi nekk na fi wala nekku fi mhm. maintenant ñi ngi war a jëm ci mbiru vaccin mhm. ñun am na feebar yoo xam ne dañ koy dégg déggatuñ ko xamuñu ko sax ñun am na xale yoo xam ne boo leen woo waxee ngas dañ naan luy loolu te am na ñu bëri suñu rakk yoo xam ne loru nañ ngas moo leen yóbbu mm-hmm. ci ñuy bokk ak yow ñu ñàkk a bokk ak yow bëri na ñoo xam ne feebar boobu moo yóbbu seen bakkan mm-hmm. tey xamuñu ko lan moo ko fi jële vaccin polio bi nga xam ne daanaka ñu bëri seen yaay yi sonaloon leen daanaka nangam nangam bugguma dugg si yenn détails yi mm-hmm. lan moo ko fi wàññi vaccin kon bu ñu ay lu bari na fi yoo xam ne ñi ngi fi tey kenn déggatu leen vaccin moo ko fi jële kon bu ñu wax nit ñi ne vaccin baaxul vaccin bi nag am na wuute ak xeetu vaccin yooyu. loolu nag du sama du sama spécialisation xëy na way docteur yi bu ñu ci tollee ñoom pour war ko expliquer nit ñi. danañ ko expliquer doomu aadama ba ñu dalal seen xel. ba ñu xam ne amul benn jafe-jafe bu mën a indi ci seen dund. ci ci maanaam soppi dara ci seen dund. yaakaar naa loolu moom amul benn nit. bu bu nekk nit ma sax jullit mais nit rek laa wax. boo xam ne dinañ la dénk dara nga koy jël di di lor sa askan ci loo xam ne. maanaam yow lu mu mënti doon na nga ko fi bàyyi gëw ma lool. Mhm. moi je crois que vaccin bi solution la. Okay. pour immuniser nit ñi. 88 mhm. la 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628. 86 86 tey gox bi itam di dalal ki nga xam ne moom moo di Abdoulaye Ba nekk conseiller ca mairie bu Ndiarème Limamoulaye nekk itam conseil technique bu maire ba mairie ba sax la ñuy daal di waxtaanee ginnaaw ba ngeen fa ñëwee ay at am na loo xam ne itam mën nañ ko fa jàpp ne lii seen équipe moom moo def comme liñ naan mairie du benn nit équipe la tey am na lu ñu mën a jàpp ni tey indi ngeen ko fa wala yeesal ngeen ko fa ci commune bu Ndiarème Limamoulaye waaw li may li may duggee foofu mooy déjà gërëm maire bi ak bureau municipal am mhm. ndax maire biñ ko biñ ko falee discours bi mu njëkk def mooy yéen yéen a ma fal waaye na ngeen fexe ba kenn ku nekk si yéen parti boobu ngeen bokk su ngeen ñëwee na yem ci buntu maire bi. Mhm. mu nekkoon discours rupture pour wane ne ñun ñëpp ñu daje fii benn équipe la ñu doon comme ni ñu ko waxee pour njëriñu askanu Njaaréem moom maanaam mairie su ma la joxee liste bureau municipal bu Njaaréem. Mhm. su ma la waxee na la maire bi jugee na PDS dem APR te feeñul ci doxalin wa mooy foofu amul xaj amul seen maanaam ñëpp benn lañ mhm. a premier bi réew mi la bokk deuxième adjoint bi mi ngi bokk ci Ousmane ci ci euh, nu mu tudd ci euh, euh, waa yu Ziguinchor bi ICS ICS la bokk Abdoulaye Baldé mhm. te kenn musul sentir ne ñi bokkuñu fu ñu mhm. jëm soo ñëwee si président commission yi ñu ci bari PDS a yor ndax liste bi PDS moo ko gañe mhm. te kenn du sentir ci biir conseil municipal bi que am na diversité bu bu ne nekkul nekkul diversité positif ndax lépp dañuy xëcc jëmee ci benn côté mooy maanaam chanc bi nga xam ne moom la maire njëkk a réussir mhm. ci conseil municipal bu Ndiarème Limamoulaye wax mosuma fàttaliku suñu conseil bu diire deux heures de temps ci délibération ci lu mënti doon on l'a fait en trente minutes ñëpp ñëpp dem ñibbi mhm. la ci doxalin mooy une gestion participative et inclusive beneen bi nga xam ne maire indi na ko mooy dafa wax dafa créer loolu ñuy wooye coordination hebdomadaire maanaam lépp lu maire bi war a def war a ko jëmale ci askan bi faaw ñu def ko ci ay coordination yu bari. Mhm. pour mën koo doxal pour que askan bu nekk kenn ku nekk ci du ñoom du ne yëguma xëy na nag dajale ñëpp dina jafe. Mhm. waaye en tout cas moyen de communication la pour personne aussi nga xam ne ñu ngi ci biir commune ñu mën a participer indi améliorer sax souvent. moo ci ëpp sax euh, li nga xam ne mairie bi njortoon na def ko. Mhm. ci coordination yi lu ci ëpp ci su jugee danañ changer doxalin ci amélioration wala amendement yoo xam ne askan bi indi nañ ko ci doxalin yooyu. Mhm. beneen bi mooy euh, maanaam mairie yi dañoo yor ay compétences transférées ci li ñu mhm. wax. tigi mais nag ci dëgg mooy dañoo am ci biir compétence yooyu ay compétences yu ñu leen transférées parce que bu ñu jëlee éducation. yaakaar naa éducation li koy doxal nee naa ñun ñaari pàcc lañ ci am muy préscolaire ak élémentaire. yaakaar naa maire ñemewul affecté wala mu recruter enseignant te ñoo ñu ci biir éducation lañ nekk waaye am na lu ñu dénk ci biir école boobu ngir ñu doxale ko lu tax loolu may wax loolu mooy ñaari nit ñi dañuy laaj mairie yi loo xam ne kenn santu leen ko te dafay baax nit ñi xam ne maire yi dafa am ay compétence yi leen dénk ci biir école yi mhm. bi ñu ñëwee maire ba mu ba mu defee tour ci école yi ba pare mhm. dañoo toog mu jël besoin école yi maanaam école yi lan mooy seeni jafe lañ ca tollool ci at mu njëkk bi euh, saafara nañ ko. Mhm. mu ne woon ay logistique lii amuñu lii maanaam école bi fenêtre bi yàqu na wala école bi douche am fees na wala nangam nangam loolu. Mhm. mu taxawal ko ci jamono boobu saafara ko ci ponctuellement ci waxtaan woowu nga xam ne moom moo ko jur muy tournée bu mu def ci ci ci ci école yi. Mhm. Euh, loolu lu mu ko jural mooy taxawal benn organe boo xam ne maanaam créer benn bureau boo xam ne. dafay jël lépp lu jëm ci biir éducation. Mhm. ci biir mairie bi bureau boobu moo ko yor. yàlla may ñu chance ñu am un ancien directeur xambaaxan xayaa ma koy nuyu de passage. Mhm. Euh, ci école bu mag boo xam ne ay résultats yu mag la doon am moom la ko njëkk a dénk mu teel ko bureau enseignant boobu. tey bi may wax ak yow nii sam benn rakk bu baax moo fa nekk tey moom laa bàyyi muy def activité de désinfection école yi moo ko porté. Mhm. ku ñuy wax Ndiaye moo ko moo ko yor fi ma toog nii euh, bi nga xam ne am nañ ko PNDL dafa ñu joxoon pour ñaari salle de classe. Mhm. ndax dañoo am benn école primaire boo xam ne dañ ko transformer CM. maanaam mu génn ci suñu compétence. Mhm. ndax CM moom mairie mairie yu mag yi ñoo ko yor non mairie ville moo ko yor mhm. compétence am. bi ñu ñëwee ci waxtaan comme li ma la wax ñu ñëw ci coordination ñu dem visiter am nañ foo xam ne war nañ fa mën a def ñaari salle de classe. mais la coordination bu génne mooy tabax école. te boo demee ci pic bi nga xam ne ñun moom lañ fa fekk muy ne am na zone ñu ciblé école boobu maire bi ci boppam ci dix-huit millions. Mhm. tey bi ma fay jógee maa ngi romb waa PADES yi nekk fa pour finaliser boucler école bi. Mhm. maanaam la commune avec la participation de l'État construire na école R ba yaakaar naa ne ren ji dinañ ko ko inaugurer en mhm. ñu ngi ko déparé ci 18 millions. de passage ñu remercier le maire de la ville parce que nit ku la defal lu baax. da koy wax ndax deux de classe la amoon moom moo ñu pour que école boobu mën a mën a mën a taxaw. Hmm. vraiment ñu ngi koy féliciter ci ci taxawaayam boobu ndax dimbale na commune bi ba mu mën a am résultat bu positif ci jëm ci mbiru éducation. en hmm. dehors de ça. Hmm. tous les ans école bi loolu ñuy wax ubbi tey jàng tey newul foofu théorie mais bu ñu nee suba la ouverture toutes les élèves danañ leen doter en tout cas ci prévision yi du tardé le maximum d'outils pour ñu mën koo def beneen am na ñaari activités yu muy def yoo xam ne xëy na baax na ñu roy ko ci muy li ñuy wax conférence de rentrée ak conférence boo xam ne ci la ñuy joxee élèves yi seen kit d'examen maanaam serment lay doon pour élèves yi ñëw def serment. Mhm. que ni ñoom dinañ def tout ba am 100 pour cent ci ci entrant sixième bi yaakaar naa daaw lañ ko defut te Covid bee tax te lépp loo xamee si ni kit la bu jëmoon si élèves yooyu muy privé du public. Hmm. maire jox na la ba boole ci benn lettre boo xam ne. mooy lettre d'encouragement yi mu yónnee woon les élèves daaw hmm. pour wan na leen nañ yéen commune bi na ngeen góorgóorlu te yaakaar naa loolu fay na hmm. ndax yaakaar bu ñu bokk suñ ci jëlut payit jëluñu ca jëluñu ci lu sori mhm. maanaam district gu Géejawaay xam ne fa lañ bokk ci éducation mhm. njaareem def na fa ay résultats yu wér mhm. yoo xamee si ni yu mag la ci benn pour nga wax li muy def ci éducation waxtu yu daaw jéeg enseignant département bi ñoo daje delloo ko njukkal moom maire ci taxawaay bi moom jëmale ko ci mbiru enseignement te yemul sax ci enseignement ko boobu ma la waxee primaire rek ba ci enseignement secondaire bi am na ci yu bëri yoo xam ne taxawu na leen pour jàppale leen xëy na nag loolu moo tax ñëpp xam nañ ne IA la mhm. professeur la dem na ba nekk IA mhm. xëy na loolu it jàppale na ko mhm. ba mu mën a xam war waram ci jëmale ko ci ci ci mbirum enseignement euh, beneen compétence nga xam ne mooy santé euh, bi mu ñëwee dañu def benn visite comme ni mu la ko waxee mooy xool lan la ñu am bi ñu ñëwee ci état civil bi ñu fekk logement sage-femme bi si kaw état civil bi maanaam à côté la maternité bi nekk mais foofu comme coow li ngeen dégg ci jamono yee ci jamonoy mbas bi. Mm-hmm. Mm-hmm. non ci jamonoy nawet bi foofu dafa nekk ci zone boo xam ne dafa zone bu suufee la. su tawee. Mm-hmm. maanaam guddi gi bu ñu dee matu mën na am jafe-jafe ndax sage-femme bi day am jafe-jafe wu. traversé génn pour dem ci foofu ndax dina am insécurité ndax dina lëndëm. ba pare dina taa souvent du xam fu muy teg tànkam. premier chantier bi mu def mooy liggéey logement sage-femme. logement sage-femme après bi mu tabaxee école bi en 2016 ku foofu fekk ko Euh, sage-femme bi ñu ngi ko defal logement. Mm-hmm. Euh, yeneen yi nga xam ne moo ko war jëmale ko diggante moom ak euh, poste de santé parce que ñun benn post de santé la ñu mm-hmm. ba ñu ñëwee CDS bi amoon na jafe-jafe ndax xëy na seen i doole mayu leen personnel ba fa ne ñu mën koo jàpp. maanaam ña nga xam ne ñoo fa newoon lu ci bëri mairie bi recruter na leen def leen ay agent ñii embauché na leen. Mm-hmm. ñii mu defaleen ay contrat pour wàññi. kattan wala wàññi euh, xaalis bi nga xam ne CDS doon na ko def pour supporter en charge parce que des fois ah, demoon nañ ba benn moment xam ne amoon nañ jafe-jafe. Mhm. mën ko ci ci mbiru ci mbiru ci ci jël en charge. fu ngeen ci toll léegi dafa mel ni yéen ngi euh, yokk ngeen seen jéego ci li jëm ci wàllum paj mi améliorer ngeen conditions yi mel na ni foofu. waaw xam nga chiffre moom boo boo boo boo boo demee foofu di nga di nga sentir ne. lépp lu mairie war a def parce que maanaam ñun dañuy créer condition mhm. ñu mën a pour ñu mën a def waaye yoruñu doxalin wa parce que foofu wax dëgg yàlla ICP moo moo yor postam mm-hmm, mm-hmm. moom moo xam nu muy doxalee postam moom ak ay ñi mu ko àndal di ko def moom CDS bi ñun appui la ñu indi te yaakaar naa ne li ñu leen appuyé euh, du ma ne ñun dong la mais néew na ci mairie buy appuyé noonu CDS mm-hmm. ndax daanaka personne yi ñu fa fekk ñu ci bëri contractualisé leen wala ñu recruté leen carrément pour wàññi euh, charge yi nga xam ne moom la CDS bi yor pour mën a def yeneen priorité hmm. ci ci ci boppam yaakaar naa ne moom lu ñu war ci hmm. def ko def nañ ko hmm. euh, ren rek ci pakaseen bi on a prévu jël dix million jox leen ko. pour que ñu gën a mën a rénover poste de santé. kon bokk ngeen ci pakaseen bi. waaw bokk nañ ci pakaseen. donc pakaseen bi du ñëpp ñoo ci bokk éligibilité la ak programme ndaxam yéen ci biir euh, pakaseen bi lan mooy si seen priorité. waaw xam nga Pakistan moom dafa ñëw pour pour ñaar en réalité dafa ñëw pour soppi doxalin yi nga xam ne moo nekk ci biir mairie yi ba euh, indicateurs yi nga xam ne ñoo yor ci mairie war a doxal mairie mm-hmm. mairie war koo mën a doxale pour que ñu mën a dem si kanam mooy chantier bi njëkk ci Pakistan mooy mairie yi di doxalee noo xam ne noonu la ñu a jàppee mairie yi mm-hmm. comme ni ma la ko waxee lu ci ëpp si ñun mm-hmm. ne fekk nañ ñu maire bi doon ko doxale ci transparence maire bi moom daanaka loolu moom xëy na suñu wërsëg la ci moom. pour mhm. muy doxalee noonu. Mhm. beneen bi mooy relever niveau euh, de rendement ressources yi wala boog relever yenn niveau yi ba askan bi am bien mhm. pour ci seen ci seen ci seen doxalan. ñun priorité yi ñu amoon ci environnement la maanaam quand je dis environnement mooy cadre de vie. ak euh, yokku. xar kanamu commune bi. Mhm. ba gisin wi ku ko gis mu gën a taaru. Mhm. na mu na mu na mu. ci loolu sax justement xar kanamu commune bi tey nan la mel am na fu ngeen ko fekkoon am na ay joyant yi ngeen ci indi tey. waaw ku xam mairie Ndiarème Limamoulaye euh, boo fa musaan ñëw fi jàkkaarloog mairie bi marché la woon. Mhm. Euh, bi maire ne day toxal marché bi ñu bëri dañ ne ko mënoo ko ndax ñu bëri jéemoon nañ ko mais ci ni ma la waxee ci gestion inclusive am. nit ñi ñoo jugal seen bopp dem ñu roger leen ci beneen marché ba ba ñu demee ba toog fa la leen fekk la mu la mu leen terale mu terale leen ko foofu mhm. boo fa demee te yaa ngi fa fekk place de l'indépendance parce que mairie bi day def day def indépendance tous les ans mhm. euh, xëy na daaw lañ ko deful ndax covid bi mais at bu jot mairie bi dafay défiler pour ses pour ses enfants mhm. place boobu lañ koy defee pour wan la ne jooyanti xar kanamu mm, commune Ndiarème Limamoulaye mhm. euh, bi bi ñu am nañu chance su amoon benn projet bi ñuy wax c'est projet la ak Union européen bi ñu may ñu tabax ay espace public euh, ci biir amoo ci Cheikh wadd ci Angle Mousse mais malheureusement euh, malheureusement laay wax parce que mhm. appropriation yi nga xam ne askan bi ñoo ko war a def parce que mairie mënul lu dul defar mhm. waaye pour mu jub gannaaw littoral bi mooy mhm. amoo 4 5 6 ginnaaw fànn yooyu xam ne xëy na seen niveau de vie wala seen niveau de compréhension moo leen ko may yeneen yëpp dafa xaw a lajj ci espace yu ñu defoon ndax askan bi jëluñu ko parce que ñoo ko a jël a approprier pour que mën a mën a mën a mën a dox nañ nga xam ne daanaka junni puisard yi ñu defaroon ci biir commune bi pour changer euh, ci image yu commune bi ah, ñetti at yu si ginnaaw boo fa ñëwoon doon dox ci quartier yu bëri da nga naan lan mooy secret commune bi. Hmm. mais malheureusement bi puisard yooyu commencé fees aussi appropriation yoo xam ne askan bi waroon nañ ko def. ba mën a defaraat puisard yi mën a continuer ci seen bien hmm. dafa xaw a jafe. loolu it lu muy wund mooy faw nit ñi soppi aussi gis-gis bi ñu am mhm. ci doxalinu nguur gi ak doxalinu nguuru nguur yu ndaw yi nga xam ne moom la ñuy wooyee maire mhm. euh, ci wàllu wi ni mel dañuy gis ni ñi nga xam ni moom moo jëm ci wàllum infrastructure yi communes yu bari dañ ko ci xaw a manqué le ndax yéen seen commune noonu la wala am na ay yeesal yi ngeen ci indi waaw comme ni ma waroon waxee dama doon dama doon lim ci réalisation yi xëy naa jotuma woon àggale mhm. mais boo jëmee ci éducation euh, bi ñu tabaxee école aussi yàlla may nañu ak programme mu état benn case des tout petits. Mhm. xëy na euh, occasion la pour ñu lancer euh, appel nouvelle directrice bi wax dëgg yàlla xale yi njaareem li moomu mhm. soxla nañu case boobu ba ñu mën cee jàngale. Mhm. ndax daanaka finition moo ci des. xëy na bu bu maire waree jël ay responsabilité dina ko jël. mais vraiment ñuy ñaan di lancer appel que que direction ñëw ñu àggale ko. pour njëriñu askanu Sénégal ak surtout bu binnaaw kaas boobu maire dafa tabax lu ñuy wooyee maison de la femme maanaam kër goo xam ne këru jigéen ñi la. Mhm. l' ensemble des groupements de femmes réunis autour de l'union communale ñoom la ko jébbal ñoom ñoo yor exploitation kër googu. Mhm. nit ñi seetaan nañ ko ci fan yee si ginnaaw je crois ci mois de décembre bi passé la ñuy def remise clé maison inclusive lu tax ñu tuddee ko maison inclusive parce que maison bi suñu mbokk yi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee waylaago ñoom lañ ko jagleel. Mhm. waaye defuñu ko rek pour ñoom kese mais dañ ko def pour askan bi yëpp ndax ñoom ci askan bi lañu bokk te am ñu savoir fair boo xam ne askan bi soxla na ko. te bu ñu leen buñ bu ñu nee maison seen maison la rek dafay mel ne dañ leen a ber foofu. Mhm. te la ñu war a jëriñ askan bi duñ ko duñ duñ ko mën a jëriñ moo tax ñu tuddee ko maison inclusive. bu mhm. dajalee kuréel yi nga xam ne ñoo fa ne di yëngu ci ñooñu ak yeneen kuréel yi nga xam ne dañ fa nekk. ngir lu jëmale doomu aadama ci kanam mhm. ñoom la ñu jagleel kër googu ci mois de décembre bi lañ ko inauguré mhm. yaakaar naa yoroñaa bi ñu ko jox def na ci contenu bu mag mhm. su newuloon mbas bi xëy na lu bëri dina gën a mën a siiw mais mbas bi moo ñu xaw a ci yu bëri ba mënuñoo def yenn yenn yenn yenn activités yi euh, am na ñaari centre commercial yoo xam ne ñun ñoo ko fa def benn mi ñu ngi ko tuddee Serigne Saliou benn mi ngi nekk en cours de construction ndax euh, fañ marché ba mu ne. Mhm. dafa xaw a doy na waar ndax liggéey ba na mu waroon demee demee wu ni. Euh, du ma tudd turwa ndax mën naa mu yàq ña fay seen i seen i liggéey waaye ca wet ga ñu ngi fay tabax beneen centre boo xam ne. Mhm. xëy na dina mën a en attendant. ba euh, partenariat privé public privé lay doon wala mairie bi moo jël engagement. tabax moo jël engagement tabax ak entrepreneur am. Mhm. li ci war a nekk mu mu mu def ko ci pour pour njëriñu pour njëriñu askan wi. am na nag yeneen xeetu xalaat yu ñu fa am ndax am na infrastructure yi fi nga xam ne état si boppam moo ko fa indi lu mel ni université virtuelle bu Sénégal mhm. ci suñu commune ca Géejawaay suñu commune la ko yàlla la ko yàlla samp mhm. lu mel ni PISA nga xam ne projet ville euh, bu bu Géejawaay la muy euh, projet pour lu ñu koy informatique appliquée. Mhm. suñu biir commune lañ koy lañ koy lañ koy tabax. Euh, am na bloc scientifique bu ñu fa tabaxoon. pour mhm. l' ensemble des élèves de CM. Mhm. yu Géejawaay yu département de Géejawaay loolu aussi ñu ngi ñaan. su fekkee ne ministre mën na si jàpp muy ministre formation professionnelle wax dëgg yàlla ba euh, bloc boobu mën a mën a mën a fonctionner. dina doon njëriñ bu baax ci xale yi. parce que xale yi am na lu bëri lu leen di wax duñ ko mën a mhm. parce que amuñu fuñ koy defee ci seen i classe te bloc boobu loolu moo ko moo ko tax a jóg. Mhm. fan yi ci ginnaaw toog nañu waxtaan parce que tribunal hors classe Pikine Guédiawaye bi nga xam ne projet chef de l'état la ci Guédiawaye. Mhm. ñu ngi ko war a tabax ci suñu biir commune. yaakaar naa lépp lu ñu xam ne waroon nañ ci def ay études de faisabilité yu bëri jàll nañ ko. ba ñu ngi pour njëriñu askanu Géejawaay boobu ci suñu biir commune la ko la ko état du Sénégal. su ma la déggee mooy euh, commune bu Ndiarème Limamoulaye mi ngi changé xar kalam euh, bëgg a dem ci émergence wala nekk yéen a ngi fa ba pare. waaw ni pour ma pour nga comprendre ñi ngi ñi ngi xaw a weesu ci yenn yi maanaam xale bi su juddoo Ndiarème Limamoulaye mën na dugg case des tout petits Cheikh Wade dem jàngee école primaire bu ko neex wala école privée. génn dem ci CM Njaareem mhm. bu fa jugee dem lycée Limamou Laye mi ngi suñ biir école parce que mhm. moo waral commune Njaareem Limamou Laye mhm. bu fa jugee day dem directement université uni maanaam lépp bépp cycle bu xale di def mun na biir commune bi te bañ ci maanaam tout le cycle euh, éducatif mu ngi biir commune Ndiarème tey mairie bi am na loo xam ne yitteel na ko te mu ngi ci yan projet la wala daanaka daj ngeen lu bari waaye am na lu des. waaw am na lu des surtout surtout ndaw yi ndax ndaw yi ci la ñu ci lañu ci lañu ci la ñu bokk. Mhm. xëy na maire ñu ngi ci xalaat lu sori lu bari sax pour xool nan la ñuy def. ba gën a jooyanti infrastructure yi nga xam ne ñu ngi ko xale yi ñu ngi koy jëfandikoo. Mhm. am nañu partenaire bu ñëwoon ak waa site Sénégal ba ñu defaroon benn espace yaakaar naa euh, ki jiite INPE xaw ma nu mu tudd. Euh, ñëwoon na ba ci commune bi. moom mhm. moo ubbi woon infrastructure boobu. Mhm. mais boo fa delloo tey vraiment da am xol bu naqari. Mhm. parce que lañ ci doon séntu ci ci yorin. ci doxalin j'avoue ko amu ci ci ci ñañ ko jox ndax mairie bi moom day tabax rek. géré euh, jox ko parce que partenariat la woon. te dafa am ñu ñu dénkoon doxalin boobu. voilà la fa ne moom vraiment honoré wul réew mi ndax. lu toll ni président NBA fu mu ñëw. Mhm. war naa am traçabilité ba ëllëg ku fa dellu si xam ne ñu ñu joxoon. Mhm. fonk nañ lañ leen joxoon kon donc dafa mel ni foofu euh, joyanti war na ci. lu bari sax. Mhm. lu bari ndax nit it lépp mënul mënul mënul. maa ngi fàttali sax ñu ko lancé woon foofu. exact ba ci ñu bari góor gi si Dieng sax. voilà ma nga woon foofu donc voilà am na luñ ci war a joyanti parce que bu na tàggat xale yi itam euh, mën a ni ki ëllëg xale yi mën ci am yoo xam ne ay roy yaay yoo xam ne ñoom itam dañ ci mën a def approprié wu lu mel loolu lu waral loolu. waaw comme li ma wax rek xam nga moom. Mhm. bu tabaxee dara. ci domaine yu mel noonu da koy confier ay nit pour ñu yoral ko ko. Mhm. ndax ñun yoruñu gestion wu doxalin parce que nee naa compétence yu bëri dafa am ñu ñu ci jox. mais joxuñu ñu compétence yëpp. Mhm. kon ñañu ko jox. xëy na ci yu mel noonu bu amatee. xëy danañ ko gën a gën a ndax xam na beneen partenaire bu bees bu ñoom. boo xam ne loolu intéressé na ko pour ñu xool ba basketteurs yi nga xam ne dañ doon jógee fii di dem Dakar ñu leen di former. Mhm. ils vont rester au niveau de la banlieue avec ce partenaire là. Mhm. pour ñu mën leen former ci foofu. ba xëy na seen éducation yu bari daal. Mhm. ñu ngi ñaan yàlla projet boobu antu ci même espace boobu. kon mbirum xëy yi naam du seen domaine waaye itam mairie mën na créer ay conditions yi nga xam ne rek dina mën a créer yoo xam ne ndaw yi dinañ ci mën a gis seen bopp bu baax itam ci wàllu waaw man sama gis-gis bopp lay wax ah. Mhm. du du maire bi mooy wax du kenn mooy wax. maanaam man Ablaye Ba maay wax sama xalaat ci lii nga ma laaj. Mhm. Euh, ndaw dafa laaj ñu former ko ci fépp. Mhm. maanaam jàng rek du mooy formation. Euh, man mii di wax ak yow su ma la nee CM2 laa bàyyee ci jàng da nga naan ma xëy na doo ko gëm ñu bëri sax duñ ko gëm ñaari. Hmm. waaye ci CM2 laa yem ci jàng. lu bëri dama ko daba dabaatu jàngalaat jàngaat ko mhm. saytu ko wala am xarit yoo xam ne ñoo ma ci jàppale ba ma mën koo def kon njàng moom mënul wees ci kenn mhm. nit soo ko bëggee dimbali da nga ko da ngay jàng ndax nit boo ko jëlee ci liggéey te li ngay liggéey xamu ko it yàgg-yàgg dafay jóge te le problème de ce pays nit ñi nangootuñu jël temps wu li nga xam ne moo war ci ñoom pour ñu def ko mhm. euh, da ngay jël étudiant mu laa lay jox mooy la non université per temps lu gën a garaaw loolu ci réew amul université mënul nekk per temps ci kenn ndax da nga fa jëlee xam-xam boo xam ne foo ko mënti yóbbu mën na laa jëriñ ci sa dund. Mhm. pour jox la benn exemple ne xale yi léegi dañoo yàkkamti seen àdduna yaakaar ne lépp dafa war a sotti tey. Mhm. loolu dama jàpp ne àndul ak xeex maanaam sous-emploi. Mhm. parce que bu fekkee réew mi lañu lañu war a former former wuñ ñu ni problème dafay am. fan yi maa ngi doon mébét ak samay gaa ñu def benn forum bu ñu doon woowee forum sur les nouveaux emplois mhm. tey li ëpp suñu réew ñu naan pétrole bi li ñu ci tudd nga baal ma xëy na mhm. du du sax waxtaan mais dafa am solo mhm. ndax da nga maa wax mbiru xëyu xale yi en parenthèse la te fii ak fukki at ak juróom su fekkee ndaw yooyu war a ñëw luñ leen tey pour que ñoom ñu mën a bokk ci loolu nga xam ne mooy xew suba maanaam bu ñu amul chance li dal yeneen réew yi mën nañu daal ndax ña koy def duñ fi dëkk ñuy jël koppar yooyu di duñ fi dëkk kon dañ koy yóbbu feneen. Hmm. te su boobaa mën naa am ne dafa am ñu koy jariñoo ak ñu ko jariñoowul hmm. yaakaar naa responsabilité ñëpp la surtout ñi nga xam ne ñoo yor école de formation yi. Hmm. mën a tàggat ndaw yi. ci métier yooyu nga xam ne ñu bari ñu ngi jàpp naan ëpp na 500 métiers juróomi téeméeri métier ci pétrole. kon fourchette la boo xam ne yaakaar naa ne war naa mën dimbale ndawu Sénégal suñ leen ci teelee gàttandu que ñu mën a xeex maanaam ñàkk liggéey bi ci ndaw yi. mais li ëpp si école li ñu lay proposer mhm. vraiment adéquat wul ak fii ak dix ans cinq ans. parce que mhm. xale yi ngi jëm ci marché du travail dans trois cinq ans ci lañ jëm ci marché du travail. Mhm. lan la ñuy fekki foofu. bu fekkee nit ñi dañu soxla ay ingénieur dañu soxla ay ñu mën a suude dañu soxla ñu mën a def leneen te suñu ndaw préparé wuñ pour loolu mhm. vraiment ñi ne ñu mën a suude ñu mën a def leneen li mhm. mhm. ñoo yor yenn yi ñu teel a yi pour ñu ko def beneen bi it lu tool yi euh, maa ngi fàttaliku ay at ci ginnaaw na kilifa gu ne woon nañ leen dollu ci teew nga xam ne ñoo yor xibaar dañ ne ko wéy na sa na ci sa doom jiitu ba pare là dañuy tàrrel réew mi mhm. parce que amul benn réew buy dem ci àdduna te mbay jëmalewu la ci kanam mhm. xale yi aussi nañu xam ne tey ñi ëpp alal ci àdduna bi en tout cas ci réew yi ñu wër ay baykat lañ. ñu ngi ciy jaar ñu ngi ciy ay baykat lañ sax ndax mhm. amul loo nit amul mënul xëy ba ngoon jot. Mhm. te jëfandikoo lu bay lu lu baykat joxe. Mhm. kon askan bi na ci na ci gën a bàyyi bëtam ubbi ci bëtam. xam ne liggéey rek du toog ci bureau. maanaam liggéey bëri na yaa yaatu na. te lu la ko mën a may aussi mooy nga jël formation yu baax yi. naam du euh, yow sax yaa war a def bilan mairie bi waaye bokk nga ci itam ñi nga xam ne euh, bu bilan jotee itam daañ ci àddu waaye tey lu ñu mën a jàpp ci seen commune ndax xam bu ngeen doon bilan bu baax la boo xam ne bu ngeen pare woon seen équipe di laajaat mairie bi dinañ leen ko joxaat. waaw loolu moom am nañ ci njort bu bu rafet a rafet ndax euh, mairie bi gën a sociale ci Sénégal et les gens se posent beaucoup de questions comment nan la maire di def ndax amul bés booy ñëw muy bës bu important te nekkul nekkul en face avec les populations jëflanteeg ñoom lu mu war a jëflanteeg ñoom. Mm-hmm. vraiment ñuy ñaan yàlla yàlla yokk ko doole. ba loolu nga xam ne tàmbali na ko mu mën ko mu mën koo continuer mm-hmm. ci mbirum social maanaam social dafa yaatu lu bëri loo ciy def doo ko mën a wax mm-hmm. ndax ka nga ko séqal rek nga koy séqal ci dewa ci sutura lay nekk mais mën nañ ne tey mairie gën a social ci Sénégal mm-hmm. mairie bu ndaw boobu ñuy wax Ndiarème Limamoulaye ci la bokk euh, boo jëlee infrastructure yi ma la limal fii ci budget boo xam ne matul cinq cent millions parce que ñun suñu budget mosul àgg cinq cent millions tu vas te poser des questions benn secret bi de servir nos populations jariñ leen tey amul loo xam ne war nañ koo def te taxawuñ ci def ko ci suñ fexee niñ ko mënee parce que def lépp moom vraiment. Mhm. ku taxaw ni def naa ko it da ngay wax li nga bëgg a wax rek mais yow ci sa bopp yéene bi nga am mënoo ko matale parce que ku nekk boo sañoon environnement bi nga dëkk mooy mooy mooy gën si environnement yi. Mhm. Euh, dëgg-dëgg rusuñu def bilan ba përki dem dafa am suñu yenn xarit yu ñëwoon ci man ne ma dañu bëggoon def benn émission boo xam ne day dem ci askan bi. wax ak moom laaj ak tontu. Mhm. maanaam bu ñu demee ci askan leen di laaj nan ngeen gisee seen mairie. maanaam bu fekkee am na ay grief yoo xam ne war nañ ñu koo wax. Mhm. dañuy dellusiwaat ci man pour mu mën a apporter ay réponses ci pour pour animer seen émission boobu. Mhm. mais dañu dem benn yoon <laughs> ñëw ci man ne ma mais grand qu'est-ce qu'il a ma ne ko ci lan ma ne mais yéen ñun lu ñu dégg ma ne ko non attends il y a deux sanctions dans la vie. il a la sanction positive et une sanction négative. les population vont nous sanctionner et mais yaakaar nañ ne ñun mhm. li ñu séq ak ñoom ah jarul de kon nit di di def lu baax su fekkee ne ñoom delloowuñ ñu loolu mhm. euh, fii lay waxee rusuma ko wax mais ku xam njaarim hmm. xam ne maire bi maanaam amul dund il vit pas voilà mën nañu wax nag lu nee ku nekk mu la neexee nga wax nu mu la neexee parce que ku bëgg a toog chaise bi nga toog. Mhm. vraiment du la mës wax ne li nga def. baax justement si ñooñu sax ndax amul leen ñenn ñoo xam ne itam ñu ngi déranger foofu bëgg seen fauteuil bi itam parce que da ngeen leen di jàppee politique politicien rek la ñuy def. non du ma ko tuddee déranger parce que maanaam loolu mooy règle démocratique ndax. ci approche démocratique lañ nekk maanaam conquête pouvoir ñu ngi koy defee ci ay urne kon ñooñu seen rôle la ñu nekk di ko def. c'est mhm. et normal. maanaam euh, lépp baax na buñ ko waxee kon jarul ñëpp di di di jóg di dem. Mhm. am nañu droit wax ñoom li ñuy wax. seen bébét mais ñun li ñu war. Mhm. mooy def li ñu war a def. nit boo defee li nga war a def et puis li le reste nga bàyyi kook askan bi. bu leen bu leen doyee comme li moo ko waxee ci émission boobu. amul suite parce que quand ils sont partis bi ñu revenir dañ ne vraiment. Eh, jarul ñu lay laaj ndax. li ñu nit ñi wax mooy lu ñu ne nii ñu ne maire daa baax euh, je que du man maa ko wax c'est des journalistes qui l'ont dit mm-hmm. su nekk loonu si duñu ma ko wax parce que en réel dañu waroon ñëw ci man way mm-hmm. maire def na lii maire moo def lee maire moo def lii ma war ci indi ay éclairage kon su fekkee émission boobu amul suite. Mhm. c' parce que les populations de Ndiarème on sanctionné positivement leur maire ci laaj yi leen doon laaj. à mhm. travers cette cette cette mhm. wax ci beneen fànn ñu ngi koy agité te bu buñ ko nekkul di ko jëmmal sax maanaam suppression ville yi dégg ngeen ministre bu ñu dénk wàllu wi ni mel mu di Omar Gueye jàpp na ni euh, ville yi njëriñ gi ñu amoon léegi dafa mel ni amatuñ ko. aw soppi mel ni lañ fa bëgg yeesal yow en tant que conseil d'abord lan moo ci sa position ndax daa d'accord nga ci suppression ville yi. waaw man question moom ma bi posé mooy lan mooy ville <laughs> d'abord ko maanaam il faut aussi ñun bu ñuy toog ñun Sénégal ñu bëgg yokk suñu démocratie réew il faut ñun acteurs yi nga xam ne ñooy ñoo jël ne dañuy def lii au moins ñu jël penu renseigné wu ci yenn yi ville dafa am lu ko tax a jóg. mais tey amul benn dëkk ci Sénégal boo xam ne la tax ñuy wax ville remplir ko ko parce que ville su amee ay commune d' arrondissement la ñu war am. Mhm. te yaakaar naa ne tous les communes d' arrondissement du Sénégal ont été transformées des communes de plein exercice. kon existence ndax li ville boobu di def loolu la communes yooyu di def. Mhm. kon bu ñu naxante quoi euh, du bu tuddee ville ak mu tudd département lan mooy lan mooy différence bi pour man question bi foofu la war yan compétence la ñuy dévolu à la ville te duñ ko mën a dévolu au, au département. mais itam est-ce que euh, référence bu ñuy jël chaque jour ñu ngi koy jël ci douane France tey France boo demee ville moo fa am am na ay arrondissement yu fa nekk tey fii naam tey euh, misaal rek exemple tey bu ki nga xam ni moom moo di maire ville bu Paris bu waroon ñëw kan moo koy recevoir kan moo koy recevoir. bon je veux dire moom laa lay expliquer xam nga appellation appellation la. da nga ne France boobu demee da nga fay fekk commune. di lu Paris di nga fekk ville fekk ay mais boo ñëwee Sénégal. paradoxe da nga fiy fekk ville ak ay communes y' a plus de communes d' dans dans dans le département de Dakar et dans les autres départements. Mhm. ay communes nga fay fekk de plein exercice. ça veut que le maire de la ville compétence yi am prérogative yi am en réalité sax maire yu communes yi ñoo ko ëppale. au début c' est la ville moo doon jox dotation communes yi. Mhm. maintenant en en réalité ak ci code bi commune d' arrondissement yi nga xam ne ñoo fi nekk ñoo a jox dotation incompréhension bi nekk ci ci ci mbir moom beneen bi mooy dama ne na hmm. maanaam mu tudd ville parce que la les villes de Dakar Pikine et de et de de et de, pas Rufisque parce que hmm. Rufisque Rufisque am na conseil départemental hmm. mais ville u Pikine ville u ak ville u ñooy def office u département ci ci seen i dëkk bien sûr mais boo demee fu mel ni Rufisque dëkkuma fa mais nañu dem foofu def analyse qu'est-ce que la ville de Rufisque a fait concrètement par rapport ak le département de Rufisque. parce que y a ville y a conseil départemental y a ba pare am mm-hmm. am commune moo am Thiès. Mm-hmm. moo am moo am moo am Rufisque. Mm-hmm. ne day am télé télé télescopage bu bëri. parce que li li ville waroon def ci compétence yi. moom la conseil départemental bi di def. ci jëm ci mbiru CM. mais jot na ay laaj na ay waxtaan sumb ko xool naka lañ ko mën a defee itam. non je veux dire ma question me posée mooy ma je veux la question. Mhm. l'opportunité jàpp nga ne amul benn politique. non non soo gisee soo gisee nu ñu nu ñuy concevoir ville. Mhm. nga xam ne amul benn politique ci code bu bees bi. ville décret présidentiel lay nekk. Mhm. bokkul ci ci ci ci ci ci organes yi maanaam. tey Sénégal ci ci pouvoir local yi ñaari organe ñoo am. Mhm. muy commune ak département. waaye aussi il faut ñu wax nit ñi maanaam boo demee si code bi doo fa fekk ville maanaam code amul ville bi amu ci quand je dis code mooy maanaam tey mhm. Sénégal ñaari organe ñoo fi nekk. Mhm. muy département ak commune. xëy na loolu ministre doon wax ñu naan ko non non non a la ville mais les villes sont instituées par décret par le président de la République maanaam fépp fu jotul tey pour rationaliser ci doole yi ñu am yëpp pour mën a gën a performant jëm si kanam est-ce que day tudd ville wala day tudd département pour man foofu la foofu la jàpp ne tur bi amul benn sens non bëriwu ko mhm. parce que nekk président du département de Guédiawaye moo doole foofu nekk le maire de la ville de sama gis-gis am na solo oui loolu sama gis-gis la. président du <laughs> département de Dakar moo ëpp puissance que nekk la mhm. le maire de la ville de Dakar. waxtu bi dem nañ am nañ mbégte bu yaa Euh, sekk waxtaan ak yow ci commune bi ñu bàyyi la rek nga daal di tàggatoo. waaw di leen gërëm di di rafetlu jotaay bi. di ñaan yàlla Sénégal ñu delloo si xel yi. Mhm. te xam ne ñun ñoo ko bokk. Mhm. Euh, suñ ma ko mayee ma ma ma gërëm ñenn. Mhm. ndax dama leen ko promettroon. mu mel ni euh, organisation bi ñuy wax ICG ca Géejawaay. ndax Sénégal dañu tàmm dara doxul dara doxul dara doxul. mais au moins ñuy def lu baax. war nañ leen wax waa góor. Mhm. man de li ma sentir. Mhm. ci jamono yu mujj yi wax dëgg yàlla UCG ñu ngi def ay efforts yu mag. Mhm. ci suñu nekkin ci ci sellal dëkkin yi nga xam ne moom la ñu moom la ñu moom la ñu dëkk. beneen biit ñuy ñaan autorités yi ñu bàyyi xel ndaw yi parce que ndaw yi ci lañ bokk. te buñ leen bàyyiwul xel ëllëg mën nañu jural loo xam ne. danañu danañu danañu bett trop. Mm-hmm. bàyyi xel ndaw nag mooy fexe ba moom cadre boo xam ne. Mm-hmm. li ndaw di def dina ko fa mën a dina ko fa mën a defee. Mm-hmm. vraiment c'est un appel bu ñuy bu ñuy ñaan yenn autorités yi. pour ñu gën a xel ndaw yi. ba ñu mën a jël en seen i bëgg seen i seen bëgg-bëgg sax mais fu ñu mën a defee seen activité parce activité ndaw ñun ñëpp jaar nañ ci mhm. te dañ koo soxla dafa bokk ci seen ci seen environnement am na solo maa ngi sant maire bi di ko mhm. gërëm ci mhm. confiance bi mu am ci ñun ñaan yàlla yàlla yokk ko yàlla yàlla guddal fanam yàlla dëgëral ko ba mébét yi mu mébét yëpp yàlla ñu àggale kook jàmm. Mhm. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp solo am na solo di gërëm rek Abdoulaye Ba nekk conseil fële ca commune bu Ndiarème Limamoulaye nekk itam conseil technique bu maire bi mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax gërëm Babaye Dara moom mi nga xam ne moom moo nekkoon ci xarale gi jox leen dig daje beneen dimanche ak beneen invité fii ci rajo Rewmi FM.